ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله وكنت يا الله تبارك وتعالى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 fële ca Palestine dafa am benn jullit bu doon waxtaan ak benn yahud yahud bi naan ko kañ ngeen di nangu masjidil aqsa ville bi di kañ ngeen koy nangu yéen jullit yi boolewaat ko ci seen pàkki lislaam yi jullit bi ko tontu naan ko noo ngi wut ay ngànnaay noo ngi wut doole noo ngi entraîner noo ngi waajal sunuy ndaw lim ay tong yu bare bari yum ko ne ñoo ngi koy waajal ñoo ngi waajal sunu delsiwaat ba mu limee yooyu ba pare yewut bi ne ko déedéet loolu lay taxul masjidul aqsa nekkaat seen loxo mu ne ko kon kañ la masjidul aqsa di nekkaat suñu loxo mun ne ko bis bu ngeen xëyee ngeen julli fajar comme ni ngeen di jullee ajjuma su di ngeen nangu loolu du rek waaye adduna bi yëpp bis bu ngeen xëyee adduna bi yëpp ñu julli fajar dëkk bu ñuy jullee ajjuma su boobaa di ngeen nangu masjidul aqsa kon muy feebar bu rëy jullit yi gëm ne àjjuma jumaa yi dañoo war a fees waaye fajar dafa ñetti nit nekk ñu ëpp ci ñun fajar ci seeni kaw la la leen di fekk ni nelaw julli fajar bokkul ci seen programme yàlla mënul am ci ñoom ñu yeewu fajar am na ci jullit yoo xam ne yàlla mënul leen yee fajar benn borom xam-xam nee na man damaa ci ndawi jullit yi damaa jaaxle ci ndawi jullit yi ñu ne ko cheikh bi lan moo la jaaxal mu ne dangay gis poids bu nekk mën nañ ko yëkkati poids boo teg ci biir dëkk bi di nga gis xale bu góor bu ko ne zacc yëkkati boo tegee poids wu 10 kilos nga gis bu ko yëkkati nga teg 100 kilos nga gis bu ko yëkkati nga teg 200 kilos nga gis bu ko yëkkati nga teg poids wu 500 kilo nga gis ko ko ne zacc yëkkati ko lépp sàcc la wala sax dañuy def ay compétition kan moo dàq yëkkati poids ci àdduna bi yenn saa yi nga dégg ñu ne mooy aqwa rajul fil alam waaye borom xam-xam boobu nee li ma jaaxal mooy xale yu góor yi yi ñuy yëkkati yëpp ak ni mu diisee mënuñoo yëkkati mbàjju fajar bi julli mbàjju ak sër bu ñuy sàngoo ak poids lu gën a diis mbàjj laa ak sër yi ñuy sàngoo ak poids wu 30 kilos 100 kilos 200 kilos 300 kilos 500 kilos moom mbàjj fajar mbokk yi lu gën a diis fu ñu fekk poids yi dinañ ko yëkkati waaye mbàjj fajar kenn mënu koo sànni jóg julli borom xam-xam boobu nee loolu moo ma jaaxal am benn jigéen boo xam ne. doom ji da ko ne yaay nag ma damay jàngi te tey damaa am examen fajar jot yaay ji yee ko ne ko jógal julli xale bi bañ a jóg yaay ji yee ko jógal julli mu bañ a jóg yaay ji julli moom dem xëy xale bi yeewu ba 9 heures yeewu gis xool montre am yëg ne tardé na ak examen bi mu woo yaay ji téléphone ne ko yaay li nga def nag yaay ji ne ko lu ma def mu ne ko waxoon naa la ni ma yee dama am examen mu ne ko bi nga tardé examen àllaaxira bi laa la jéppi dem xëy parce que man examen àdduna yitteelu examen àllaaxira mooy ban mooy fajar lu julli fajar ñun ñi ñëpp tey danañ xëy sangu dugg ci suñuy oto tërërër yi dàqanteeg kaar yi dàqanteeg taxi yi oto personnel yi nga xam ne ñoo ñu yóbbu ñu liggéey lii nga gis ndeysaan yenn saa yi kuy xëy romb jàkk ji fajal pourtant salaatu nañ de waaye day romb jàkk ji dund bokki jullit yi min fadaili salaati lfajr jamaa fi masjid ala waqtiha bokk na ci ngëneelu julli fajar ci mbooloo ci jàkka ca waxtu wa julli fajar ak mbooloo bokku ñu nga julli fajar sa ak mbooloo fan fil masjid fan ala waqtiha encore ci heure bi loolu boo ko doon lim ci ay ngën li ci nekk kenn xamul ñaata tiyaaba la ci njëkk mooy anna muhafaza ala salati alfajri wal asri jamaa yurja bihima naylu ruyatillah kii julli fajar ci jàkk julli tàkkusaan ci jàkk bokk na ci xeewal yu rëy yuñ ko dencal yéen ca gën a rëy mooy ëllëg àllaaxira dina gis yàlla tey bu ne woon mbokk yi ku def nangam ak nangam di nga gis président dina la recevoir wallahi ñu ñëpp dinañ ko def billahi wallahi wa taala su ñu ne woon nangam ak nangam ko def di nga gis président dina la recevoir ñun ñi ñëpp ci jumaa ji dinañ ko def lu tax te parce que dañuy yaakaar ci président recevoir ñu am foñet dañuy yaakaar président recevoir ñu daraja bu yëkkati ko taraanga bu ñu am imaginez ñu ne ku nangam di nga gis yàlla loolu ban daraja moo ko gën a rëy te waa ji lu yeewu fajar yàlla yu soxlaal ko ba muy sànni mbàjjam yeewu dem wuy ji yàlla yàllaa ko wom dem ñaareel bi mooy man salla al fajar fajri man salla al fajri fi jamaa fa innahu yanaalu ajru ijtimaai al malaika wa tafarruqihim bokk na ci tiyaaba yu rëy yi kii julli fajar di am ci mbooloo li gën a rëy ci tiyaaba yi muy am tiyaaba mooy dajaloo malaaka yi ak seen wala malaaka daje lañ doon def ñoom malaaka ba ba ñuy tàqalikoo yow loolu nga def mu ëpp tiyaaba daje malaaka yi ak seen tàqalikoo te yow loo def muy julli ji fekk allahu akbar mooy man sallal fajr fi jamaa qabla tuluwi shams falan yalijan naar ku julli fajar ci mbooloo balaa jant bi di jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waajoo ji dugg safara falan yali janna allahu akbar waaye imaginer tey lii li nga gis yàlla li nga am te bu ëpp malaaka yi dajalo ak ko di nga ci safara li yëpp yëngal sénégalais yi pour ñu ni am nañ responsabilité pour lan dañoo war yeewu julli ji fajar coow li li muy bëri bëri Sénégal ci booteeg njullit géeg xëccoo tarixa yeeg maa bokk fi ak maa gëm diw soo demee fajar jàpp doo ko gis ñooyu dina rey ram nit ñu ak nangam ak nangam kër ci soo demee fajar jàpp doo leen gis yàlla jaralu leen ñu jóg yàlla jaralu leen ñu xuus lëndëm gi yàlla jaralu leen ñu laal ndox sedd mi wuy jikko moom yàlla tabaraka wa taala te wallahi al suñ ne woon président day jullee ci jàkk sàngam fajar ku ko fa fekk di nga am dara ñun ñëpp danañ julli ji ci jàkk yooyu danañ raa dem foofu basilique bu mag ak Côte d'Ivoire tabaxal ko chrétien yi ko ay jullite fi ay yéefar nga tabaxal catholique yi parce que fa nga bopp nga bàyyi jullit yi mu ne wax ngeen dëgg bu tabax jumaa mu tabaxee jumaa jullit yi moom jumaa joo xam ne yéeféer yee ko tabax ñun duñ ci jumaa jamais benn waaye ñoo ne ko président yàq nga ciment yàq nga xaalis bu dee lu ma defati ko jumaa ji nga tabax ñun amul kenn ci julli ne na baax na benn vendredi rek mu nekk mu jox ko enveloppe un million un million ñooñu génn tasaare xabaar la ilaha illallah ñu ne vendredi président moo ñëw ku nekk 1 million. deuxième vendredi mu ñëw fekk jumaa ji fees nekk 500000 troisième vendredi mu ñëw fekk ñu baare tali bi mënul yegsi ndax jumaa ji fees mu ne yàlla na yàlla nangu seen jiw dem yoon. nit ñi bu dee poñetu àdduna même fii suñu yëgee ne jàkka ji am na tey takk bisaab beñe boobo tàngal mant da ngay gis jumaa ji fees jàkka ji takku saal. dañ xew fi ñu takk ah waaye bu fekkee takk amul dara amul ay samedi dimanche yi doo gis nit ñi waaye takk jumaa ji takkusaan soo gisee mu fees comme jumaa rek comme vendredi laaj ca xew ñu ne la dañuy takk diw di gis ñëpp toilette yi ñëw bu kenn dul takk kenn du faale loolu islam la beñe beñe moo la yóbbu beñe guro tàngal loolu moo ñu war a jinjeer boisson canette loolu moo ñu waree bu jumaa wala pas-pas boo xam ne yàlla tabaaraka wa taala moo tax yonent bi moo wax dëgg mu ne ngeen xamoon ne di ngeen fa fekk palaat yàpp poot yu diis dibi su ngeen xamoon ne di ngeen fa fekk azmu samin yax bu duuf bu ñu lakk ba mu ñor ngeen dem julli ci yonent bi sallallahu alayhi bokk na ci mbokk yi ngënee yeewu fajar dem julli ji ci mbooloo anna man salla al fajra fi jamaa fa ka ma salla al layl kullu sallallahu alayhi wa sallam ne hadis boo xam ne muslim moo ko solo mu ne képp ku julli fajar ci mbooloo yaa ngi mel ne ku fanaane naafila ba bët set ku fanaane naafila wala qiyaamu layli ni mu amee importance nga xam ne yàlla bi muy tagg jaamu yàlla yi dane alladina yabituuna li rabbihim sujjatan wa qiyaama nga xam ne ñu fanaana naafila bi sujjoot yàlla bu muy tàgg sahaaba yi kaanu qalilan min al leyli maa yarjaun ñoom daawu nelaw guddi lu néew la ñuy nelaw lépp dañ koy dañ koy naafila xoolal yeneen bi fajar jàkk yaa mel ne fanaane naafila ba set bokk na ci ngëneeli julli fajar ci mbooloo sallallahu alayhi wa sallam nee na anna man hafada ala salati al fajr wal jamaa daxala al janna bi nee na képp julli fajar ak julli mbooloo ci ci mbooloo julli takkusaan ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee kooku dana dugg aljanna képp koo xam ne respecté nga takkusaan ci mbooloo nga respecté suba ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow da nga dugg aljanna xoolal dig yu rëy yi mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dig nu sunu sant nu ko kon yonent bi nee na anna man xaafada ala salaati alfajri wal isha fi lmasjid fa innahu laysa min almunafiqin yonent bi nee na képp ku respecté julli fajar képp ku respecté julli gee yonent bi nee na yow doo naafiq yow doo naafiq moo tax bokk na ci niñ daal xàmmee naafiq yi ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñi daaw dem jàkk fajar daaw ñu dem jàkk julli timis gee ñaar yooyu bokk na ci mandarga yu ñuy xàmmee naa fekk ku dul yeewu fajar dem jàkk naa fekk nga wala am nga mandarga naa fekk ku dul julli gee ci mbooloo am nga mandarga yi naa fekk loolu lañ leen daan xàmmee xoolal tey ñu nekk ay jullit di wootewu quatre-vingt-quinze pour cent musulman vendredi rek la jàkk ji di fees vendredi vendredi dong la jàkk yi di fees vendredi wala korite wala tabaski wala takk am takk ñaar yii rek nga mun a waat ne jàkk yi ci lay fees buur vendredi dañuy lal balal tali bi am na jàkk dëkk yoo xam ne boo fa duggee dañuy baare tali yi waaw ana jullit yooyu doon julli si vendredi boobu ana jullit yooyu fajar bi mu jotee fu nekk wala fan lañ jàng ci ban diine lañ jàng julli vendredi waaw na fees julli korite na fees tabaski na fees waaye fajar bi ku am temps dem loolu ban diine moo ko santaane loolu ana yan texte ñoo ko soññee wala fan la jàngee julli farata fajar du farata julli suba du farata yeneen julli du farata vendredi rek mooy farata mbokk yi fan ki santaane julli vendredi moo santaane julli fajar moo ko moom te li mu diggee ci fajar diggewu ko ci vendredi li mu diggee ci fajar xoola waxuma fajar ñaari rakka yi farata yi waaye ñaar rakka sunna yi rek yonent bi nee na xayrun min ad dunya wa ma fiha ñaar rakka la sunna yi yi nga xam ne bu ñu salaatoo ba pare nga koy def toog ñu bismillah nga jóg julli fajar yonent bi ne ñaari rakk yooyu moo gën àdduna ak lu nekk ci biir àdduna te jullee koo farata bi waxuma farata bokk na ci xéewal yi ñu wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bokk na ci ngëneelu julli fajar na man masalaha fi zulma fa innahu yubsiru bin nuuri tàmma yowma alqiyama ki nga xam ne day yeewu këram six heures et quart six demi génn di dox ci lëndëm gi jëm ci jàkka ji pour julli ji lëndëm boobu muy dox yonent bi nee na yàlla dina ko ko remplacer leer yawmal qiyaam ci biir aljanna koy dina am leeraay bu mat sëkk moo tax gis na bu ñu demee àllaaxira waa àjjana dugg àjjana leer di jolli naafeq yi di xool gis julli bi dañoo am leer seeni leer ay projecteur la yu feeñ ci seeni jëf di leeral yoon wi ñuy jaar dañuy xool julli di naan leen unzuruna naqtabis min nuurikum waaw xool leen ñu waaye ndax ñu mën a am leer xool leen ñu lan la leen julli di tontu qiila irji'u waraakum faltamisu nuura dalu leen ginnaaw leer lan lañ leen doon wax mooy del leen àddina fa la ñuy utee leer fekk c'est trop tard loolu leeraayu dem julli ji fajar la yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori nun ibadallah ba tey bokk na ci ngëneelu julli fajar ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man salla al fajra jamaa fa huwa fi zimmatillahi hatta yusi képp ku xëy suba génn sa kër jubal ci jàkkat yi julli ji ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee yaa ngi ci sécurité yàlla ba ngoon jot yaa ngi ci sécurité yaa ngi ci kóolute yàlla yaa ngi ci kii kiiraayu yàlla yàlla moo lay aar ba ngoon jot da ngay gis ñun muy xëyee ñii di jàmm ñii di takk ñii di diw am na ñoo xam ne bu ñu xëyee balaa ñuy génn foog ñu takk cinquante ndombo soo leen nee lii naan la ñu naan dëkk bi wóorul gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa dañuy takk takk oto bi takk taabal dañuy jaayee takk buntu atelier bi takk takk takk yonent bi nee na takk soo jullee fajar ci mbooloo yàlla dina la aar doy na yàlla moo lay aar te yonent bi doo xam bokk na ci anna man salla al jamaa man qaama min nawmihi wa salla salima bi iznillahi taala min bawli seytaan fi uznayhi képp ku xëy suba julli fajar ci mbooloo yonent bi alayhi salaatu ci seytaane saw ci say nopp allah am na jullit yoo xam ne ndeysaan chaque jour fajar seytaane dina muri mbaat jimi génne awraam saw seen ñaari nopp ba mu fees dal dal dal dal sàngaan leen mbàjj dem dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye moom de kenn musu koo gis mu yow fajar julli mu ne zaakar rajul baala seytaanu fi usnay waa jooju seytaanee saw ci noppam ku ne yow fajar ku ne bu yeboo nga xam ne boo yow bu yeboo nga saabon ki nga xam ne day tardé julli ji fajar jaar xamul ngeen li ci digge wallahi même bu doon raam même bu doon raam ñu koy diri dana diri leen ma ngeen yóbbu ma ca jàkka ja dana jàppoo leen ma yóbbu ma ca jàkka ja waaye tey ci nga gis ci élection yi ci élection yi laa jommi ma gis ay nit ñoo xam ne dañ leen jàppoo ñuy ñëw di warees ay ñoo xam ne dañ leen jàppoo laa wax jàppoo jàpp mbagg ndeyjoor mbagg càmmoñ allah ñu naan kii bëgg réew mi kii bëgg réew mi wallahi azim kooku suñ ko laajoon ndax sa sa tànk yi nii raam nga ci dem jàkka ne mun maa dem jàkka mun maa dem jàkka ni loolu la ngay bëgg réew mi nga bëgg yàlla réew mi di fi jógee yàllaa la fi indi bi mu la fi indi tàgguwul bu la fiy jëlee du tàggoo dana la fi génn nga bàyyi réew mi bàyyi waa réew mi bàyyi doomi réew mi bàyyi amami réew mi fekk yàlla boo demee du la laaj ay élection du la laaj réew lu mu lay laaj maa diinuk lan mooy sa diine te julli bi ci la bokk naka la ñu feebare vote ji gumba gis naa wallahi allahi ci kaw minbar jumaa laa nekk gis naa silmaxa bu ñu jàpp wammat indi mu wote gis naa ko feebar ku ñu jàpp indi mu gis naa ko tànkam yi metti ñu jàpp wommat indi mu wat maa ngi taxaw di xool di jàng di jàng te bu julli jotee ñoo ñëpp doo leen gis ki silmaxa danaan man damaa silmaxa ki feebar tànkam yi demee man maa dem ki nangam nangam ku nekk di indi ngant te bu ay caaxaani àddina jotee ñëpp ku nekk di wane ne fii laa far lii laa bëgg lii mooy sama pas-pas lii mooy nangam lii mooy yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko bëgg lu dul yàlla nax sa bopp la jaamu ku dul yàlla pertement la sonn ci lu dul yàlla toroxtaange adduna ak àllaaxira soo amee yàlla pertoo dara boo ñàkkee yàlla amoon dara bu nekkoon adduna ak lu ci biiram fii ngay dee bàyyi ko fekk yàlla kutibal mawt alal xal fa kam falla min jaysin wa afna min duwal ayna man saadu wa saadu wa banaw chaque jour ñu gis milliardaire multi milliardaire bu ñu génn ci biir këram wàcce ci lalam julli ay am-amam yóbbu àllaaxira du yóbbaale dërëm am-am mooy am yàlla ñàkk mooy perte yàlla bëgg mooy bëgg yàlla ngëm-ngëm mooy gëm yàlla lu dul loolu noonu la perte maa la koo àndal di ko bàyyi fekk yàlla ak ku ak ku ak loo mën a am di ko bàyyi fekk yàlla lépp danañ ko nangu futti la teg fee dugal na ci morgue bi lépp lu amoon ñu nangu ko dara du la topp lu dul say tiyaaba rek moo lay yóbbu ba ci biir bàmmeel loolu doomu moo lay gunge yeneen bi nee na yatba'ul mayyit salaasa ku dee ñett lay gunge mu gi lay yem du dem am bi nit di am gi lay yem danañ nangu la yére yi sax na benn mbokk bu nekk ci jumaa goroom dafa génn àdduna ñu woon ñu ñëw dugal ko ci kees yóbbu ko ba ci morgue ba teg ko ñibbisi ci kër gi benn doomam ne poos yi xool ngeen ko am na lu ci nekk <laughs> poos yi xool ngeen ko am na lu ci nekk ne ko demal nga jëlee ko sa bopp poos yi am lu ci gis na de dara darul dara lu yi am na lu ci nekk ne ko demal nga jëlee ko sa bopp waaw ñëwaat ne ma est-ce que doon ay 15000 ay 20000 ma ne nañ ko jëlee seen bopp la ca nekk moom xaw ma poos yi am na lu ci nekk mu def ko jëli leen ah loolu mooy wax bi topp àdduna di lu nu neex ñu def te fàtte ne lépp ko bàyyi fekk suñu borom dana ñu yàlla woon dëkk mu wërsëgal ñu topp ko dana ñu yàlla woon nee mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa ya musabitul xulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مرة جميلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم